<laughs> yow lan la ngay garder lan la ngay garder Uber yow ah. <laughs> nga faam nga wala dara. laa ilaaha illallah allahu akbar waa déedéet waa waa waa métul métul sa doom ji nag xaaral xaaral laa ilaha illallah allahu akbar eh, mais Omar yéen a ngi doxal kan moo lay gis kan moo lay gis naan amoo xaalis kan mais Mbaye kan moo lay gis ne amoo xaalis Mbaye ba xaalis <laughs> eh bàyyi jàmm na ah France France dafa sedd ah eh France dafa France dafa sedd bàyyi leen jàmbur eh France dafa sedd Xalifa bàyyi leen jàmbur i daal di Amadou kontaan na si yow am na lu ma wax nag <laughs> Kok kalau ada pada sendiri tadi? Ayo, Kondama. Jadi. Jadi. maa ngi jégalu de baal leen maa xool maa péage bi am embouteillage bu métti maa ngi jégalu baax billahi barke alxuraan karim direct laa def ak sama bakkan doom ñu laa jógee bari ak sama yàlla bu ma tëgg sama doom ñu laa jógee bari barke alxuraan karim waaw jaar ko seen bravo ay nabu France dafa sedd yow laa yaakaar maa ngi bi xawal jën rek. waaw lumière nañu taal nañu yokk taal. Daara sa kanam gi nga ne na de. ah waaw. Daara. Paco. Grand du baax de grand. C'est bon, tonton Médoune, c'est bon, les lumières, prends lumière. waaw parce que dafa war a leer France du ay caaxaan. waaw yaa yaa